xam nga mébétu acteur yu bari euh, gannaaw ba président jëlee décision am euh, dañoo ne élection bi nañu ko yaatal ñi war a mbokk ñëpp. tout à nañu ci bokk. tout à euh, yaa ngi naan nañu jubboole réew mi. Mm. waaye est-ce que mën nañu pacifier totalement l'espace politique ak le pays bu fekkee ne am na. Euh, mu ngi plané ci bopp kenn koo xam ne nag il s'est classé troisième nga bugguma singulariser mais société lii tax mu am mooy justice mooy yow mii bu ma la tooñee ñu teg ma daan boo ma tooñee ñu teg ma daan te du ma fajal sama bopp doo fajal sama bopp donc nit ku nekk li nga xam ne lii moom la ñu bëgg mooy élection inclusive ku war a bokk bokk gis nga États-Unis par exemple ñoom candidat bu nekk même buñ la condamné crime bi gën a graw nga bëgg a nekk candidat da ngay nekk candidat ñoom amuñu benn gàllankoor buy tere nit ki nekk candidat bokkul ak Sénégal Sénégal dafa am ay loi yu ñu wax ne boo defee lii def lii def lii ñu teg la daan bii daan bi doo bokk loolu defuñu ko pour kenn ku mu dal ci sa kaw rek mu dal ci sa kaw mais loolu bu deñee c'est-à-dire bis bu ñu demee ba nga xam ni justice day dogal ñu ne la justice dogal bu ñu ko doxal kon kay tijji leen kaso yépp bis bu ñu demee Sénégal ba nga xam ni justice dogal na ñu ne la mu dogal bu ñu ko doxal nañu ko teggi teg fële pour yeneen raison société bi tas na puisque ci ban base ngay jàppee ki sàcc ginaar bi wala ki dem euh, def accident circulation rey nit wala nangam ci ban base nga koy jàppe y des milliers et des milliers de sénégalais yu nekk ci prison bi lu leen fa téye décision de justice yow parce que leader politique nga nga mucc ci loolu ah wala boog ñu voté benn loi daal di ne ku am parti politique wala kuy defar politique loo mënti def mucc nga kenn du la teg daan bu boobaa defe naa ni 17 millions de partis ñooy am <laughs> ah loolu rek mën a nekk mais société mënula am sans le commun respect par tout le monde des décisions de justice gis nga États-Unis gii ngay wax ak France yi ñu jàppee modèle bis bu ne cour suprême ba wala conseil constitutionnel ba jël dogal boo xam ni débat yu dul jeex lay jur ñii duñ ci d'accord ñii di ko ŋaañ mais benn américain xelam du dem ci violer la cour ba décidé benn ñoom ñëpp ci ànd ne lii dañ koy wëyal tant que loolu mooy tax société am donc nañu jàpp ni élection inclusive la ñu bëgg maa ngi ñaanal euh, Ousmane moomu nga wax sama jarbaat la j'ai beaucoup d'affection pour lui yaayam Thiessoise la donc euh, ñaanal ko mu génn ci euh, problème yi mu yi mu nekk mais bu dalee ci kawam itam mu muñ yeneen élection ngi fi te te moom xale la